Euh, dañu am mbégte tey dalal fii ambassadeur Chine pour maanaam euh, li jëm ci réfection barrage u Affiniam réfection bi xam ngeen ne barrage bi biñ ko tabaxee ba léegi upp na fanweeri at mais dafa amoon yàqu-yàqu yu bëri yoo xam ne euh, mënutul woon presque def lu ñu doon xaar ci barrage ñu ngi am mbégte nag tey di gis ne entreprise bi daaw bi ñu demee mois de juin defe naa lañ fa demoon pour euh, maanaam lancer travaux yi euh, délai yi respecté nañ ko barrage bi jeex na li ci des mooy léegi ñun ministère de l'agriculture ñu xool nan la ñuy def aménagement yi war pour ñu mun ci liggéey barrage bi bokk ci loo xam ne ñoom ñoo moo indil comme koom euh, Sénégal bokk ci maanaam participer ci suñu autosuffisance euh, donc ñu ngi gërëm Chine euh, président Macky Sall moo diggoon euh, waa Casamance région de Ziguinchor kon dañuy réhabiliter barrage Dafiniam tey mën nañu wax ne en tout cas euh, tenir na promesse boobu barrage bi réhabiliter nañ ko te incha allah moom sax xam naa bu demee tourner dans la zone de la Casamance dina fee ba jaar foofu pour ñu mun a inaugurer barrage bi wasalaam.